day findel rek ni le mal est profond. Mhm. Euh, moment bi ñu ci doon waxtaan la fois passée maa ngi doon wax boobu noonu ñu ci doon waxtaan am na ñoo xamante ni ñu ngi préparé seen i bagages. dem ba nii ñuy waxee. Mhm. am na ñoo xamante ni ñu ngi préparé seen i bagages pour dem donc surtout les responsabilités parce que responsabilité aussi c' est multiforme. Mhm. Euh, multidimensionnel am na ci ñoo xamante ne responsabilité personnelle nit ki nga xamante ne moom moo jël ay bagages am ne mu ngi dem Barça wala Barça. ni may wax responsabilité personnelle bi ñuy engagé mooy boo jëlee ay 700000 mille ba 1 million. ça veut dire que ni kooku il n'est pas assez pauvre comme on le mm-hmm. donc am na ci yoo xamante ne xëy na bu ko defoon pour moins que sax des gens euh, réussir nañ. ba euh, andi euh, lu bari ci seen i dundin. donc kon responsabilité ak culpabilité bokkul parce que bu ñu nee la coupable effectivement ki def loolu noonu mais son boobu noonu yëpp y business des businessmen qui sont mm-hmm. ki nga xamante ne daaj na gaalam lijjanti taf yëngal. ba def ci daanaka lu toll ci cinq cent mille wala nangam imaginez muy encaissé par sept cent cent mille def ko une centaine de personnes la ñaata la koy dikkee donc kooku c'est un businessman boo xamante ne mi ngi ci illégalité trafic d'êtres humains bu metti boo xamante ne nag au vu et au su parfois de parce que ni ñu def ba jàppoon avocat français boobu noonu xëy na bu ñu ko surveiller suñu code ni ko waree xëy na yii nii yëpp du mën a am donc kon actuellement euh, y a aussi la question de la précarité démb démb démb benn entrepreneur BTP yore entreprise am yore ay employé wu moo ma ne moom bu gisee yoon day dem non je te jure boobu muy wax loolu mi ngi dëkk bi Sébikotane euh, nekk yore entreprise BTP am Soumaré la tudd euh, xam naa ko bu baax te liggéey di employé ay nit ne la man bu ma gisee yoon bi damay dem ça veut dire que ni au la même euh, de cette précarité bi ñuy dénoncer chaque jour mais am na ci ñoo xamante ne c'est l'environnement moom moo leen convenirul pour mën a dundu euh, convenablement dañuy dem ba boo tollee ci situation boo xamante ne dee moo la gën a liggéey dundu kon liggéey dund tamit war nañ interroger wu lan la exactement en door de la crise politique wala crise économique yi ñuy wax mais foog ñu wax la crise sociale bi nekk mm-hmm. Sénégal pression sociale bi nga xamante ne moom mooy nekk fii nii au jour la jour mm-hmm. da ngay dem ba léegi gàddaay bi pour gën a sori loolu noonu mais pas sax <coughs> parce que fi ñu jëm tamit neexul de fi ñu jëm tamit du da ngay ñëw di euh, for ay xaalis di dem mm-hmm. mais y une pression sociale boo xamante ne moom la ñuy daw fii nii te loolu noonu à chaque fois damay inviter les sociologues à que ñu xool la société sénégalaise qu'est-ce qu'elle est devenue finalement dafa dem ba euh, dunduñ bi euh, le comme vouloir de vie commune mm-hmm. moom moo commencé di sori sénégalais yi donc jàpp naa ne actuellement ci question bii nii les responsabilités sont partagées mais la culpabilité de ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy def nekkuñu rek dans le cadre de wuti euh, parce que ñu génn ay 1 million pour dem amaana yor nañ donc kon foog ñu xool maintenant en profondeur lan moo ko waral maintenant nag la responsabilité étatique loolu moom kenn du ko mën a dindi képp koo xamante ne yaa ngi ci réew mi ku fi xaaxam jam sax Euh, ki nga xamante ne moom lañ dénk le destin des citoyens di moom am na ci part de responsabilité mm-hmm. en faisant quoi li nga xamante ne moom mooy atmosphère bu conviviale pour mën a permettre nit ki mu dund avec ataraxie mm-hmm. c'est-à-dire la paix de l'âme mm-hmm. du rek xaalis Eh. mais la paix de l'âme boobu noonu nga sentir en toute liberté ci sa réew nga sentir sénégalais ci sa propre réew parce que effectivement euh, mentalité euh, colonisatrice bi doyen doon wax léegi effectivement daf ci am mhm. ndax bu njëkk lan moo doon xew dañuy ñëw fekk fii nii ay sénégalais ay euh, congolais ay africains jël les ressources les plus valides jël leen de force dugal leen euh, jàpp leen jàmm ceene leen yóbbu leen pour ñu construire les plantations en Amérique wala defari Europe actuellement nga gis ne circonst euh, situation bu inverse la. ay ah, esclaves yooyu ñu jël de force instant yooyu ñun ñoom ñoo ñoom ñooy dem nag de force. par force nañu dem construire yi dëkk jàmm alors donc ni nga mën a taylee sa bakkan ci océan bi wala ci désert bi boo ko mënoon a tayle euh, lu bëri ci sa euh, mbir. pour defar sa réew jàpp naa ne on ne serait pas à ce niveau là mm-hmm. mais la situation elle est catastrophique mm-hmm. bi nañ doon jàpp jàmm de force actuellement Euh, doonuñ ay jaam waaye ñoom ñooy dem livrer seen bopp de force pour construire beneen dëkk. ça veut dire ni war na nañoo def jàngat bu xóot a xóot sur la crise sociale ici. Euh, alors pour ce qui est euh, de la question mooy euh, aujourd'hui yi nga xamante ni ñu ngi koy def saccage ñu ñuy def yenn édifice public yeeg yooyu noonu parce que. degré de frustration bi lay wane uh-huh. c'est-à-dire degré de frustration bi lay wane mais aussi l'étendue parfois. de ñoom li ñu jàpp ni moom mooy responsable parce que ay toj ak i taal ak yooyu loolu du du engagement politique du dara c'est-à-dire nit ki la degré de frustration yegg foo xamante ne jàpp na leen lu mu war a mën a lijjanti da koy lijjanti par la violence et que il s'exerce une violence sur lui-même parce que jug ne da ngay dem bi bar sàq mm-hmm. loolu xam nga ne yaa ngi violenté sa bopp donc kon leneen loo mën a jàkkaloo sa kaw noonu lay demee rek malheureusement